ay ca doore kox njiitu réew mi sa Touba yëral le témoin yootul l'info teg ca laas président Macky Sall mu ngi cay tàggatoo de nee naal Muntaxa su neexee sunu borom de màggaluk déwén dama ne njiitu réew moo fiy dikk ndax man nag na ma ko waxe woon Mbàkke laa koy defee noo laa ko fas yéene jëfee xel ñaar manees naa ñàkk maa woon soo leen ma joxaatee nguur gi ñaareel bi yoon mooy doon sama mujjeelu mandat loolee laa dëggal laa la wax ñëw di la ko seedeel Le Quotidien kaay ni Macky Sall def na kon ak cantab tàggatoowam de na xalif bi na xel yi dal Mbàkke balaay sa lii ma desi si bopp nguur gi da askanuk Sénégal dama ma ne ku tëdd bu la neexee nelawal ba yandoor ndax dinaa def sama kéem kàttan ba réew mi laa la wax nekk si jàmm le mandat yéene ni dama ne ah président Macky mu ngay daan xaafu nag mu ngay daan xaafu ñii nga xam ne ñoo bëgg a yëngal réew mi ne nañ koy taal l'observateur ni yaram daw na démb laa la wax sa Touba njiitu réew mi doon sa tàggatoo xalif ba Walf Quotidien ni moo yey nag ndax bii mooy dernière màggalam en tant chef d'état réew mi de chef d'état président Macky Sall ci direct news nee na fukki at ak ñaar laa laa taalaay te dara ñaawul dara ñaawul gis naa laa la wax li nga def yëpp mbàkke ngir man ma la koy sant di la ko gërëme waaye nag maa ngi sàkku si yow ñaan ñaan ngir lu saxal jàmm ci réewum Sénégal président Macky Sall si Sud Quotidien nee na jàmmi réew mi kat ñaanu suñu kilifa diine yi kat am na ca solo laa la wax kon nag bu leen tàyyi mukk di def ay ñaan ngir lu saxal jàmm ci réewum Sénégal le point yéene kaay ne borom mbégte mi bég na laa la wax ci président Macky Sall al muntaxaa nee na ko am nga sunu ngërëm sàll am nga sunu ñaan doxalal de dama ne doxalal laa la wax li mooy dàq foofu sa ginnaaw bu ragal dara vox populi nii gaa ñi waxuñu lépp de gaa ñi waxuñu lépp laa la wax gannaaw gërëm gaax cant ga dam ne am na lu ko jiitu gaa ñi waxtaan nañu ci suuf laa la wax wér gu yaram pros président Macky Sall xamal ne ko kon waaye Yewwi Askan Wi de seen délégation boobee yombal na nañu leen laa la wax ngir ñu mën a gis Ousmane Sonko lépp lu ñu wax lu dul lii dara amu sax ay manipulation rek la toog nañu jooy nañu def nañ seen cinéma waaye yombal nañu leen ngir ñu dem gis Ousmane Sonko jox nañ ko yóbbal bi am am déet loolee nag mënuma caa wax ndax ñoom yi neen la ñoom daal la concerné Mbàkke balaay sa al muntaxaa ni ko kon wàccoo ngax ñoom sàlla wàccoo ngax ñoom dama ne def nga li la war mani def naa yëfi jullit si seen ak sàkkuteef ñoom bi ñu ñëwee jox naa leen yóbbal goo boo xam na nii Ousmane Sonko la ñu ko waroon a jox ngir mu génn ci xéefal gi mu nekk li si des nag moom mooy seet li ko doy mu def ko ndax nag magum jëmb kenn du wañ loxoom vox populi ni kon lii yëpp jot nañu ko fa waxtaane laa la wax waxtaane nañu ko fa sa suuf soog a siwal tàggatoo ca kaw tàggatoo googee de le point actu na li ma si yéem lenn rek la gisuma Amadou Ba ca délégation ba ku gisoon Amadou Ba ca délégation ba dama ko wax bokkul woon sa délégation ba de Ba direct news ne kon tegal foofee doon candidat bu Benno Dakar critique yéen a kaay naka yow tegal foofee sa baaraam te jàpp président Macky tàggatoo na il sort par la grande porte de Touba génne génne bu rafet Bougane Gueye Dany moom i dugg-dugg bu rafet doon sa ziar si xalif ba tribune yéen kaay ni le président Macky Sall fait ses adieux Bougane Gueye sollicite son plébiscite pour njiital gëm sa bopp ni li ma def nii kay du bees màggal gi rek boolew ñu de déedéet Mbàkke balaay sa kàddug réew mi Mbàkke balaay sa lii rek laay ñaan le mandat ni kon Bougane Gueye Dany mu ngay tibb tànk président Macky waajaa ngay tàggatoo Bougane di nuyoo nee xalif bi def si ñaan de def si ñaan Mbàkke sama candidature bii ngir ma am si ndam l'évidence yéen na xel dal na xel li dal xalif ba ñaanal na ko nag Bougane reçoit les bénédictions de Serigne Mountakha Mbàkke yootul le républicain teg sa kon l'indépendant Bougane Gueye Dany mu nga say am xel mu dal mu nga say am yaakaar ngir jiite réew mi ëllëg xalif ko doxalal de Gueye Dany doxalal nga sama ngërëm am bàyyi benn yoon kanu bàyyi kay may ko liberté provisoire l'indépendant yéen kaay nee moo di Cheikh Bara Ndiaye tribune yéen kaay ni bàyyi nañu ko de may ko bàyyi nëgës ndiko suñu kilifa diine yi boo leen bëggee dégg dëgg de dox nañu sax ñi bëgg dox tànk jàmm ñanti njekk ngir nag ñu bàyyi di suñu politique yi ñooñee moo di société civile bi l'évidence yéen kaay ni la société civile plaide pour des grâces exceptionnelles yootu le regard ñu nga seen ñaan njekk président Macky Sall nee nañ ko la ñu lay jox liste téeméer gañu seen kàddu moo leen tooñ ngir ñu mën leen a may liberté provisoire grand place ni grâce exceptionnelle ak liberté provisoire la ñuy ñaanal laa la wax détenu yi nga xam ne seen làmmañ rek moo leen dugal wax juréy moo leen tëjlu mu njaay siise Babacar Gaye ak seeni ñooñ nee nañu dañ ko dox de dañ ko dox jox ko ministre de la justice jox ko liste ba ngir ñaan njekk rek nag waa Pastef ne bëgguñu déedéet bëgguñu laa la wax bu ñu kenn ñaanal njekk yootul yooyee nga xam ne dañuy ñaan njekk rek ngir ñu bàyyi leen waaye laaj ñeen lu ñuy tontu nee nañ bëgguñu ñoo bañ bay ut ku leen bañ le ñaanuñu laa la wax te yónnee ñu ku leen ñaanal njekk Juan Branco ci libération yéene kaay nee na Sonko du kuy yalwaan ak libération de déedéet Sonko du yalwaan laa la wax ma jàllul benn yoon samay waxi démb yi ngeen yàq laay defaraat tey jii dama ne Sonko du kuy négocier ngir ñu man koo bàyyi ñu xamee ko noonu nag